mukarraman bi qirat taahaati wa sadadi jërë ngeen jëf ci seetaan bi ngeen nuy seetaan ak déglu bi ci sunu actu point com ñuy ànd ak yéen ci naafile yi ni am ci weeru koor wi tey ñu nekk ci guddi fukkeel bi ak benn guddi fukkeel bi ak benn ñu koy jëlee ci téereb Sëriñ yi bu Mbàkke bi ñuy wax xoratul xay ni ñu dikk ci guddi fukkeel bi ak benn bi guddi fukkeel bi ak benn ñeent rakka la rakka bu nekk dinañ ci jàng faatiya inaa ansalnaahu juróom ñaari yoon ak xul huwa yu alkaafiruun ñu jàng ko moom i ak xul huwallaahu ahad lu ci nekk juróom-ñaari yoon ñu baamtuwaatal leen ko guddik fukkeel bi ak benn dinañ ci jàng dinañ ci julli ñeenti rakka rakka bu nekk fatiha lañ ciy jàng ak ina ansalnaahu fi laylatul xadri juróom-ñaari yoon jàng ci ak xul xul yaa ayyuhal ak xul huwallaahu lu ci nekk dinañ ko jàng juróom-ñaari yoon mbokk yi ñu sant leen gërëm leen di leen ñaanal yàlla defal ñu koor ak jàmm